di ñaanal baa Abdoulaye Thiaw yàlla yokki leeram tataanu si par exemple ñu ngi lay gën mais tey dama ñëw fekk rek nga def rouge blanc da ngay ñaxtu wala nu mu demee noonu. waaw di nuyuwaale aussi Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo fi nekkal Serigne Touba ñu ngi koy ziar bu di ko wax ni Diouf ñu ngi lay tàllal suñuy loxo waa rouge bi de samay feem la rek waaye du dara. Mm. waaw du tey ñu ñëw fekk la nga def open press say say say doom day ñëw say fan si ñëw say xarit ñëw tey naka nga waajal open press. waa open press bi nag waajal nañ ko xam nga boo gars yi ñëw di bëggee sama gars yi lépp loo si gis si wàllu organisation rek sama gars yi la di leen bëggee bu baax di bëggee waa koñ bi aussi bu baax a baax a baax. nga ñëw fi mu toll ni état de forme fan la toll. waaye saa toll nii moom naaj saa yéen toll nii moom lu si amul woon mënatuñu ko see am xanaa di xaar bés ba ñëw rek di ñaan yàlla mooy na ndam si kaw booy Dakar incha allah. ba nga yeewu dem entraînement. non fan yi moom sax yeewuma suba damay nelaw a nelaw ba xaabaabal ngoon gi ma dem entraînement. waaw booy Dakar da laa commencé jàpp ci mystique. non non non boo ko paree ba mu des deux semaines boo noppalul sa yaram mënatoo def leneen quoi da ngay noppalu des fois dem contact jàppante xam nga yee cardio bi yooyu noonu ainsi foofu lan toll. kon instant bi daal su ma la déggee maanaam lépp nice non tout est bien incha allah te ñu ngi ñaan yàlla mottali lépp ñu am dam lu seddu bii si kaw booy dama dégg nga am benn communication boo doon waxee. man maay xale moom pas dakaar la du booy Dakar yaa ngi ci communication boobu ba léegi. waaw mais man maay xale te damaa war a dem loolu kañ maa ngi si ba léegi nii mosuma see dañ maay xale te damaa war a dem te bu ñëwee bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko bu ñëwee taxaw bañ ñu du bëre ma fekk ko fa duma ko. dafa am lu la dee. non dee dara sama gëm-gëm laay waxee quoi. man sama sa combat sama communication nii la sama gëm-gëm. laa moo tax la moo tax nga xaw sous-estimé Boy Dakar te ku ne xam na ni ndaanaan la ci wàllu bëre ndaanaan la ci wàllum xeex. noo man du ma sous-estimé mbër man nii laa mel naturel man su ma la jëlee dootuma gis saf qualité sama qualité rek laay e gis te ñëw ma fi pour jël mbër di xool ay qualité am man sama ay qualité laa gëm te gëm naa ni samay qualité man bu ma ko defee bu si yàlla àndee man na yem ma quoi. ñu si bàyyi choix bi baaxul. waaw xëy na ñoom loolu seen xalaat la làmb ji bari na ay mbër proposé nañ ma mbër yu bari mais buñ ma proposé Boy Dakar ma nangu ko kon taman na bis bu ma demee ba mënumaa daan booy dakaar di am xel ñaar ne mënumaa daan booy dakaar kon man jarul may sonn ndax kon du mën a daan benn champion ndax Boy Dakar làmb ji am na ñu ko fi ñu fi nekk ëpp gën koo gudd gën koo rëy ñoo xamante ni samay prochain adversaire lan bu fekkee man dama dem bay am xel ñaar ne mënumaa daan Boy Dakar kon man na maa teel a bàyyi te xam ne du daan ñooñu combat bi dina am xeex. bu sax sap si bu ko dawul. bu sap sap booy Dakar daw ci yow nag yow <laughs> non booy Dakar bëree yooyu lay bëri bëree tappale mais bu ñëwee taxaw arbitre neppi musul tànk yi billaay dañuy xeex xeex bu saf sap sax. ni mu lay waxee dama gis benn benn benn détermination benn gëm-gëm boo am lan la. non man nii laa mel. te tey jii nii yow gis nga bu fekkee doomu aadama da ngay jóg benn nit di topp sa ginnaaw sax waxuma ngay jóg centaine personnes topp sa ginnaaw li ma nekk man su si amul gëm-gëm duma ma ko bàyyi xool leneen ta gëm-gëm bi sax du wax ji la quoi gëm-gëm bi sa géew ba la te bu nu eggee si géew ba chaque jour gars yi dinañ gën a xam ne gëm-gëm bi may ñëwee chaque jour moom laay ñëwee yoruma mandam nag yàlla moo yor ndam te maa ngi ñaan mu may ma ndam mais incha allah lépp lu nu war dinañ ko def bu soobee sunu borom. lan nga koy wax. mu taxaw dëggal boppam kase aw ma leneen lu ma koy wax na taxaw na dëggal boppam. nee nag omi saasal na ko dem na ci dini ba omi gën naa dëgg gannaaw da ngay wax omi omu màgget. waa noo lool laa bëgg gis naa ko seetaan ko mu ne instant yii toll nii wér naa alhamdulilah dara dalatuma loolu moom ma gënal pour bu ma ko daanee mu bañ a mën a am ay lii wa ma daloon wala leneen na wér na pireng na ñëw ñu jëflante incha allah. côté mobilisation fan nga ci toll képp kenn ku ne xam ne ni ay xale la ñu boole ay espoir la ñu boole comme ni ko Assane de waxee sept grands combats la boole ci benn bés naka ngay waajee mobilisation. non côté mobilisation moom sama monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr sànq nee na ma dinaa la jëndal billet yëpp te Abdou Naar tamit nee na ma maares kaar yëpp di woo ñeneen ñu gën a ñëw gën a jàpp si billet yi gën a jàpp si kaar yi ndax combat bi dama bëgg rangal ay plus de vingt cinq oto duy ko. yóbbu ko stade dama bëgg duy loo xamante ni bu ma jugee bu ma daanee booy Dakar dinañ xam ni man su ma yoon du du ay booy Dakar ak ay yooyu ñu jox ma ci mbër yi ma war a bëreel incha allah. lan ñan ngay woo ak looy ñaax supporters yi. yee supporters yi liñ leen di ñaax mooy ñu ñëw jàpp taxaw dëggal seen bopp yëngal ci kaw. ma taxaw si suuf dëggal sama bopp jaxase gan gi si suuf daan ko ñu ñëw si savouré incha allah. tàggatoo woote. yee maa woo di gërëm taala meng bu baax a baax maa ngi koy gërëm taala meng jàpp na si xam nga di gërëm di woo. sunu monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr encore di ko gën a woowaat ci combat bi nee na dina def mais nag na gën a jàpp ndax ñun ay xale yoo xam daa am lu bari lu toog suñu ginnaaw te ñun mobilisation bi lu mu gën a bëri chaque jour dañuy am ay problème fi ay oto ay billets chaque jour même bu ñu jëndalee billets sax dañuy am ay problème mu ay oto ay billets ndax booy ñëppay bëgg a dem di ko wax mu jàpp si bu baax a baax di owaat Abdou Naar di ko wax mu jàpp si bu baax a baax di owaat encore une fois cawlaay cawlaay mooy sanga bi xam nga mooy doomu Baye mooy ki ma sol tamit maa ngi koy woo bu baax a baax di ko wax mu ñëw jàpp si combat bi bu baax diwoo woo Mamadou diwoo di woo Moustapha Tall Baye Seylaay maa ngi woo Baye Seylaay bu baax diwoo sama grand yi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk extérieur ku si mel ni Jogo Fall maa ngi koy woo diwoo woo Bayaaku mu ndaw bu baax di woo Thiaas Mbay diwoo woo waa di nuyu Paabu sama grand frère sama chauffeur <laughs> maa koy bëggee bu baax a baax di bëggee sama gars yëpp. la demee nag. looy fecc kenn kenn kenn raajaaj ku ko man la koy defee gi jara kid cacaj cacaj gi jara kid cacaj gis ngeen di bëggee gaayam yëpp lañ koy defee di leen jox dig daje beneen yoon ci Wassare Lamb ba bés ba waaw ba bés ba incha allah yàlla na yàlla ànd ak ñun may nu ndam lu seddu guy si barki sëñ Fallou. aja aada kontaan naa ci yow ba beneen yoon. rendez-vous. rendez-vous le 16 incha allah le 16 ni ñu ko tàngale fii damay dem daal booy Dakar nga ñëwaat fii ñu tàngalaat ko incha allah waaw baax na bu <laughs> soobee suñu borom.